chers internautes leen di nuyu bu baax di leen euh, ziar di am mbégte bu baax di dem ak yéen fii ci seen chaîne leader bi lee di Dakar Media TV comme ni ñu koy defee à chaque di leen toppal actualité yi en ñoo xamante ni euh, dinañ ci mën a débattre ak ñoom euh, ba mu doon ci yéen ñu ngi seetaan te nag ñoo am mbégte dalal Mayabé Mbaye di magi Pastef nekk coordonnateur magi Pastef waaye nekk itam membre bu parti bi di Pastef tey nag mu lañ dalalaat fii ci biir Dakar Media. fa seeni waxtaan nag moom la tour de l'actualité politique sans détour muy li ci ay leeral yu bare bari balaa ñoo gën a xóot ci sujet ñu war a waxtaanee dañ koy daal di nuyu rek euh, ziar ko bàyyi ko mu nuyoo bu ñuy seetaan kon ko maye ba ñu ngi ziar bu baax di amal mbégte jàkkaarloog yow bàyyi la nga nuyoog euh, internet Dakar Media yi. auzu billahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi lay fay di nuyu internet yëpp di leen ziare di leen di wax ni ñëw nañu pour ñu waxtaan ci actualité bi te actualité bi dafa jeex jamono ji waaye ci nu kéemtalaay kàttan dinañ ci mën a leeral lépp luñ ci mën a leeral incha allah. Mm, jërëjëf am na solo euh, dañuy njëkkee ak li nga xamante ni moom mooy lancement euh, journée nationale set setal bi euh, président Bassirou Diomaye daal di wax à ce que rek ñu def ko ci suñu réew mi fépp fi nga xamante ni rek maanaam ci Sénégal. ñu def li nga xamante ni moom mooy set setal gis nañ tey euh, pour la première fois euh, ñu gis président bu wàcc euh, sur le terrain ak njabootam wane le bon exemple wane ni Sénégal ñun ñoo ko moom nañ ko defaat nañ ko bokk parce que ku ne xam ne inondation yaa ngi ñëw te mbalit mi bokk na ci li nga xamante ni moom mooy tax yoon yi yoonu ndox mi du mën a yaxaat ba ndox mi mën a dem tey nag mooy gisee loolu. waaw xam nga déjà rek yow tontu nga genn wàll question bi du loo xam ne sax président daf ko nar wax pour ñu soog koy def dafa war a nekk loo xam ne dafa nekk culture chez nous mm-hmm. mais comme yàlla dogal na demewul noonu président promet mm-hmm. wax ni cleaning day bi nan ko jàpp mu génn moom njagondam joxe la bon exemple def lancement bi mu nekk journée boo xam ne ñëpp dañ ci war a def mm-hmm. ñu évacuer lépp loo xam ni dafay dem semaine bee passé maa ngi lay wax ni la taw yi bare na ci àddina bi te ñun ñu ngi prévoir taw bu bare di ragal inondation te yaa ngi wax léegi ni mbalit mi bokk na ci li nga xam ni day entraver la bonne marche de l'eau te ndoo boo ko xañee fu muy jaar ndox boo ko xañee fu muy jaar mu mu xool naka lay def donc par conséquent ñu def cleaning day bi ñëpp jàpp ci réew mi set te réew mi sax dafa war di set nag mm-hmm. bii day benn waaye warta yam fii non seulement war na nañu def setal réew mi war nañu sax saxal ay garab parce que kenn ku ne am garab de façon que ni dakaar amaati garab. Mhm. dakaar set da ngay dem ci yenn réew yi en Afrique je te da ngay taxaw da ngay ndax réew mi ni mu setee ak ni mu rafete mais ñun Sénégal dafa am benn wax boo xam ne tant dañu suñu esprit. Mhm. duñu gaaw a defar mu baax. Mhm. mooy mbedd mbedd mu buur la. ku fóote sa biir kër ñëw sotti ci mbedd mi. ku raxas sa jën sa biir kër ñëw soddi si mbedd mi xëy lii lan la mbedd mi mbeddum buur la esprit yooyu yëpp foog mu dañ ñu def Sénégal mu rafet Dakar nekk une des plus belles villes d'Afrique mm-hmm. am na solo vraiment mu nekk loo xamante ni euh, ñëpp ko salué euh, te yaakaar naa ni itam gis nañ sénégalais yu bëree bëri génn nañu un peu partout fii ci Dakar tey di wëyal li nga xamante ni rek moom mooy euh, bile set setal mais bu ñu fa jógee dañuy ñëw ci voyage yu le président Bassirou Diomaye Faye ba tey gis nañ ko dem na fi nga xamante ni moom mooy Mali Euh, dem na fi nga xam ne tam moom mooy euh, Burkina Faso gisee ay homologam waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni rek moom mooy euh, coopération bilatérale ci diggante ñaari dëkk yi muy visite boo xamante ni ñeneen visite d'amitié la ak waxtaan li nga xamante ni moom moo ñeel dëkk yi ñu ay dëkk ponchiste donte Ousmane Sonko le premier ministre moo ko njëkkoon a ne moom dafay dem mais finalement le président Bassirou lañu gis mu dem mu jur nag ay wax parce que ñu bëri ñu naan réew mu toll ni Sénégal warul dem ci yenn dëkk yi nga xamante ni ay dëkk consulat la. xam nga maa ngi lay wax semaine bale passé ñu mhm. la bu doon sama souhait moo doon sax mu dem Guinée Bissau mu mel ne def ma dégg dem na Guinée Bissau ñaareel ba il faut faire la distinction entre la déclaration du président du premier ministre Ousmane Sonko ak le voyage du président. Bassirou Diomaye Faye mhm. le président euh, ministre. Mhm. il a parlé en tant que chef de parti. dëkk la boo xam ni suñu modèle suñu façon de faire daf leen neex ñu bëgg dem waxtaan ak ñoom wan leen naka la mais tout ça dans le calme ah euh, dans le calme et comment naka laa ko mën a waxee sax ba tax na ñoom ñu mën a jaar ci yoon defar seen réew ñun Sénégal ça nous a coûté très cher mais il faudrait que dans une autre expérience mu réussir comme le Sénégal sans effusion de sang donc kooku problème amitié la entre le peuple ces trois peuples là ak Pastef mais le président de la République imaginez que mu def tous les pays tëb quatre pays yooyu mais c'est une catastrophe mm. ensuite li muy dox dafa bëgg CEDEAO réunifié wu te CEDEAO mën na ko réunifié te waxtaan ak ñoom ñoom il y a deux faits une coopération entre ñun ak ñoom mm. ñu mën a waxtaan suñu diggante qu'ils soient pushes ou autre chose, ce qui nous intéresse, c'est la relation qu'il y a entre eux et nous. Deuxièmement, il y a la reconstruction de la CEDEAO et la redynamisation de la CEDEAO. Ça ne peut pas se faire sans eux. D'autant plus que Nyom Bede qui a créé une entité qui peut contrôler la CEDEAO. Donc autant freiner tout, Watan dans la limite du possible. Il dit qu'ils sont très intransigeants dans leurs principes, mais il y a une possibilité de les faire revenir. donc muy dox un leadership boo xam ne Sénégal daf ko mas a am pour que CEDEAO nekk la CEDEAO du peuple mais pas un syndicat de d'État mais nag dafa am question boo wax nga les gens ñun personne n'est d'accord sur mhm. je répète encore une fois quand quelqu'un est dans un pays di ko mené par une dictature le peuple souffre ñu wax wax mënuñ ci dara la CEDEAO ni pat La CEDEAO, au lieu de lui mettre la pression et être auprès du peuple, la CEDEAO danaan pat kooku di doxale lu mu ko neexee tant que nanguwu na rester dans la CEDEAO wala def nii léegi les militaires am seen personnalité ñëw auprès du peuple et arracher le pouvoir pour remettre les choses à l'ordre. ah mais ne dañ ah, toog dañuy toog lu ko indi. waaw parce que boo leen. on est en train non on est en les conséquences bàyyi les causes. lu ko indi loolu si les présidents jaar nañu fi ñu waroon jaar nekk auto du au côté du peuple di def li ñeen war coup d'état du am ba militaire bi toog ensuite militaire bi daf ko jël arraché ko pour mettre les choses au point dans l'ordre avant de remettre ça ça prendra le temps que ça patron je ne suis pas d'accord avec eux pour ñu toog éternellement pour ñu toog fi encore un très longtemps mais je suis d'accord avec ñoom ñu jël le temps qu'il faut ba remettre toutes les choses en place avant ñu koy rendre que c'est une raison pour bodd leen ci lépp non il faudrait que la CEDEAO su situation yooyu amatee le peuple souffre que la CEDEAO réagisse ils étaient pressés dàq dàq Yaya Jammeh ils étaient prêts de faire beaucoup de choses il faudrait que la CEDEAO soit une CEDEAO des peuples africains ouest africains mais que bu mu nekk un syndicat des chefs d'État où ils ne pensent qu'à régler leurs problèmes entre eux et de rester au voilà donc mais est-ce que loolu tamit bokk na ci waxtaan bi jàpp nga ni euh, président Bassirou Diomaye Faye dina dox tamit ay jéego à ce que ñu organiser aussi tam waxtaan ak ñoom. mais déggoo li mu wax nee na sur ce plan là waxtaan na ci surtout Assimi Goïta xam na ni il est très parce que gëm nañu si li ñu nekk mais néanmoins pour moom gis na benn faay boo xam mun na ci jaar waxtaan ak ñoom pour ñu replier wu. dellu soit au niveau de la CEDEAO. CEDEAO mais ñoom nag bokk nañ ñu doon ñu doon ñu doon ñu doon euh, maanaam dal ci kaw CEDEAO ba ñu opposition bi daan nañ leen dégg ñu naan. ils bien fait sax de quitter euh, euh, CEDEAO. mais parce que cette CEDEAO mais tey bu ñu gisaatee changement de dernière minute ñu ñëw bëgg a jëlaat. mais suivez suivez chronologiquement la démarche du président Diomaye Faye. Mm-hmm. quand il est en Côte d'Ivoire il a demandé à Alassane Ouattara. moom mi nga xam ne ci il fait partie des leaders wax ni que nañu convoqué la commission là bi nga xam ne pendant vingt ans c'est pas réuni pour la CEDEAO. cest que ñu ngi fexe mu bañ a nekk ci syndicat des des présidents mais mu nekk euh, une CEDEAO du des foofu la commencé. après di wax critique ban daan critiquer di wax ni la CEDEAO nekkul CEDEAO doxul son rôle moo tax tey jii ñuy jóg di dox pour redynamiser ko. pour ñi nga xam ne beddi woon na leen ñu delloo su mu nekk une CEDEAO ñu teg ko ci ay charte yu leer donc logique ba nekkoon ba nekkee opposition ak logique tey ba nekkee opposition on n'avait pas cette de tout faire pour que remettre la la CEDEAO sur selle mais aujourd'hui qu'on est au pouvoir on est en train de faire des delloo CEDEAO ci euh, mettre ko en selle pour mu mel ni ko peuple yi bëgg donc il n'y pas de contradiction hmm. solo bu ñu jógee foofu ñu ñëw ci li nga xamante ni nag yaakaar naa ni euh, semaine bi yëpp moom la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. muy euh, l' affectation ou bien la nomination du général Kandé comme attaché militaire mm-hmm. euh, fële ca New Delhi ca Inde. Mm-hmm. jur nañu ay polémique yu bare bare bari gis nañ sax ay journal yoo xamante ni bind nañ ba mu mu am ay arrestation et tout ñu bëri maanaam jàpp ni Ousmane Sonko moom moo nekk ci ginnaaw lii yëpp. Ousmane Sonko naka la mën a nekk ci ginnaaw lii yëpp Ousmane Sonko du moom mooy affecté ensuite il faudrait que ñu xam benn mbir mbir moom dafa yaatu il y un décret signé par l'ancien président qui permet au président d'envoyer des généraux comme conseil militaire dans les ambassades le président de la République a jugé opportun d'affecter un général comme attaché militaire au ci Inde. Mm-hmm. Inde lan la sur le plan armé c'est une puissance ensuite pour bañ sore foofu parce que c'est un problème militaire il faut ñu jox leen seen cër lépp la grande muette ñu respecte loolu je me réfère à la sortie du jeune du colonel Ndao qui dit que il n'y a aucun problème dans ce qu'a fait Abdou Aziz Ndaw il n'y a aucun problème sur ce qu'a fait le président Bassirou Diomaye Faye maintenant on en vient aux journalistes ils ont écrit en citant un site en citant benn organe ni organe bi ensuite yow naka ngay citer organe jàmbur ba pare def ko à la une comme su fekkoon sa sa sa kii la sooy citer kay donc def à la une disait un journaliste et j'ai aimé ce qu'il a da ngay cité ni benn organe moo ko def yow doo ko def à la une ça c'est un deuxièmement organe bi nga site nee na masuma ko wax masuma ko def deux ce qui lan moo leen tax a jóg ensuite loolu ñu wax mënoon na déstabiliser le pays parce qu'ils ont parlé un premier jour mm-hmm. en disant simplement jël premier ministre mettre en mal avec le général sa n'a pas fait de tollé le lendemain ils ont mis du piment mm-hmm. c'est pourquoi on les a convoqués heureusement que mu mucc gu rafet parce que après mu ñoom ñëpp mu dina leen bàyyi mais li ñu wax mënoon na tasub réew mënoon na tasub réew lan mooy euh, but bi lan la doon recherché pourquoi tout sax mais la nga jàpp ne moo waral di yenn ci journal yi. mais xëy def ko à une titré ko. mais déedéet soo ko bëggee analyser noonu. Mm-hmm. dafay mel na nga jël pièce bi yëpp presse bi yëpp soor leen ci benn kàddu déedéet. ñenn ñi laa boobu ngay wax muy ñaari organes yooyu. Mhm, muy la tribune ak la quotidien. la tribune ak le quotidien da nga naan lan mooy si kii mais donc la réponse est facile. Mhm. regarde depuis quatre ans seen diggante ak ñun quand on était à l'opposition seen diggante ak ñun quand on est venu au pouvoir masuñu wax bien bienfait que le pouvoir a euh, def na. lu ñu wax loo def ñu xëpp ci kaan yi loolu mooy seen intention ensuite ñu wax wax ju ëpp ñu convoqué leen ñu naan la démon s'est réveillé normalement il parle de dépénalisation de la des délits de presse je tiens à dire tout de suite que je n'ai aucun problème avec la presse que ñoom ñoo xam ni dama leen jox ci respecté leen mais dépénalisation des délits de presse. Ce qui dit qu'un journaliste, il peut dire et faire ce qu'il veut, comme il le veut et quand il le veut. dara du ko ci <laughs> très bien léegi ñu def dépénalisation des délits de de conduite le chauffeur bu mbëkkatee nit ñu dépénaliser keneen laaj keneen laaj non liberté d'expression. Mm-hmm. il faut ñu permettre aux journaliste muy wax li mu xalaat di ko wax te muy vérité su demee rayante ba am une information mu neex nguur gi mu naqari nguur gi buy dëgg ñu bàyyi ko mu wax ko la liberté d'expression tout le monde est pour mais dépénalisation de délit de presse moi je suis foncièrement contre on parle de la république des juges mm. parce qu'on veut pas le président génn ci euh, kii léegi nag ñoom ñu bëgg ñu may leen ñoom tamit ñuy def leen neex c'est que comme s'ils étaient au-dessus au-dessus de la loi personne n'est au de la loi ils doivent être justiciables comme tout le monde. kon na nga gisee euh, bi. cap ba. cap cest à que le communiqué pour demander à ce que kii le le le. les journalistes parce que non il faudrait qu'ils comprennent une chose kenn ku ne ci li ngay liggéey ngay faute ci li ngay liggéey ngay juume chauffeur bi day dawal am benn manque de reflex fel nit mu dee tout de suite la première chose à faire mooy da nga koy def garde à vue tëj ko mais gis nañ aussi tam euh, ba ngeen di opposé wu ay journalistes yoo xamante ni dañ doon génnee ay information yoo xamante ni c'était confidentiel de la gendarmerie ak yeneen ak yeneen bu ñu leen tegee loxo dañuy gis position bi nga xamante ni ñenn ñi ci euh, fare ak yéen dañ doon jël yenn position yi di wax à que euh, ñu libere leen parce que nag. il y a ñooñu dañ doon génne ay documents yoo xam ne confidentiel mais c'était ah, mais loo xamante confidentiel mais mais mais mais attendez confidentiel non c'est pas la même chose. d'accord c'est-à-dire que ils ont fait loo xam ne peut-être defuwul génne dossier yoo xam ne c'est confidentiel. Mm-hmm. mais ce qu'ils disaient c'était des vérités ils disaient des rapports yoo xam ne dafa exister. ñii ñaar li ñu def teguñu ko fenn existé wul c'est pas la même chose ñee certes li ñu def mënoon nañ ko bañ a def parce que. du délit la waaw délit la certes. Mm-hmm. parce que mais li ñu doon wax dafa nekk dëkk. te parce que lu tax. Mm-hmm. parce que jamono jooju dañu bëggoon faagaagal te seen génn daf nu arrangé woon donc wax nañ ko ñu jël ci ñu jëlee ci lu bari ñun. jamono jooju gis ñu woon ngeen jël position xamal journaliste boobu ko doon def ne ko carrément li ngay def nii tegoo ko mais dañ doon gis ñoom dañu doon prôné à euh, ce que ñu libéré ñu libéré ko parce que jàpp nañ ni euh, maanaam euh, otage la comme ni ñu ko daan waxee seen ay moo yooyu noonu. Mhm. tax daawal tenir le même discours. aussi donc xam ngeen ne loolu déli la. léegi je ne suis pas là pour défendre ce journaliste mais nous rappelons il ya a eu enquête sur une affaire mu dem ba jaxasoo ba benn capitaine dem ba ñu ràjjeeku il y eu une enquête au sein de la gendarmerie demandée par le général qui dirigeait la gendarmerie ce rapport génn ak ya mu génnee yépp comme vérité ils ont voulu le régime ancien a voulu nous faire comprendre qu'il n'y avait pas de rapport que lu ñuy wax rumeur yooyu c'est pas vrai le journaliste a fait abus de non non non non non non non de la liberté d'expression au point où pour ne pas dire que ni ñii rapport bi dafay dafay setal kii ñu accusé tax na ñu mbëkkul na bu tax mu génne ko ni ko fang dafa génne une vérité absolue fii tey lu xew kii moo ñëw créer des choses de toutes pièces loo xam ni existé wul fenn wax loo un général loo xam ni masu ko wax tam xam nañ ni le général ne répondra pas xam na ni du génn du wax ñu taqal ci un premier ministre boo xam ni yoonam newu ci du moom mooy nommé du moom mooy fal joxe ay argument comme quoi dafa bëggoon defal ay accord de défense comme bu fekkoon prérogative premier ministre la maanaam. li ñu wax commencement ba feeñ nga baal ma dara du ci dëgg mu mënoon déstabiliser dëkk bi le procureur s'autosaisi ñëw woo leen déglu leen quelle a été l'issue bàyyi na leen quelle a été leur réplique juste nekkuñu fii pour def seen jugement ñu bëgg invité la presse à éviter ça dana ñëw pour defar ñu ngi nekk di defar su fekkee li ñuy def baaxul nañu critiquer su fekkee li ñuy def deful nañu dénoncer mais aussi bu fekkee li def baax na nañ ko wax nit ñi dégg teyam foofu mais bu ñu jéem jaxase askan bi ñaar ñooñu rek la te ñaar ñooñu suñu diggante ak ñoom ça fait plus de huit ah, mais mais mais Bougane moom ñu gisoon nañ ko ci euh, en tant que opposant. Mm-hmm. même bu fekkee farut ak yéen sax mais bokkoon nag yéen combat moo jëlee foon président Macky Sall kon kooku mënuñu woon wax ne seen seen ennemi la quand même. non attendez soo ko waxee noonu. day jox bu naan honneur bu mu amul. Bougane dafa topp suñu ligne. pourquoi parce que nous étions en train réussir. Bougane topp suñu gannaaw lu nu waddal mu for. bu demee ba perdre tuuti ak atu daw tafu ci kanam Ousmane Sonko dellusiwaat amaat kii. à un certain moment Bougane a joué et perdu. maa non laisse-moi laisse-moi expliquer Bougane a joué et perdu comment. Mhm. man dans un dans une sortie nee naa ko Bougane. Mhm. su fekkee li ngay woote na mi ngi ci yow da ngay xeex le système. Mhm. viens rejoindre la commune la coalition Diomaye président mënoonu yokkal dara mënoonu wàññil dara mais l'histoire retiendra que bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo indi alternance lui, à la dernière minute, disant que lui, il est contre le système. Le système a ay candidat, il y a fixe aux alentours. L'antisystème a un candidat. Bougan, qu'est-ce qu'il dit J'attends le deuxième tour. Je lui avais dit que deuxième tour, en premier tour, moi, c'était pour que, sous deuxième tour, en fonction de son importance, de l'importance qu'il se donne, qu'il n'a pas, mais qu'il se donne, il ne l'a pas. Bougan, il faut qu'il mesure. amul fu ñu mesurer importance am xam li moom sortir de l'argent aller dans l'intérieur du pays sortir de l'argent se faire encadrer par des gens amul benn élection boo mën a wax ni Bougane am na lii donc kenn amul fu ñu ko mesurer je dis donc mu joxe benn capacité ak benn force boo xam ne daf koy wax te amu ko mu ni day xaar deuxième tour je lui avais dit que da ngay sonal sa bopp deuxième tour il y aura pour négocier pour pouvoir se taper quelques places quelques qui, un quota de ministre, un quota de DG, un quota de qui. Il a joué et perdu. Il est dans l'oubli. Heureusement pour lui. Parce que nous avons une politique. Khalifa Sall moins de 4%. Idriss Seck moins de 2%. Tiano Alassane Sall qui parlait avant-hier, 0,0001%. Nous, politiquement, ils sont balayés. Bougan Bougnon, il serait ridicule comme ces autres-là. Xam lu gëm na gëm yàlla te toog xam ni fii Diomaye ak Ousmane Sonko le peuple bi jox baat cinquante quatre et pour cent au premier tour du jamais vu te sax cinquante quatre et pour cent yi yokku na donc nañu dal te tey te dem li am ba des nag ñun on a compris le premier ministre la sortie a dit c' clair net et mais gis nañ avant ñoom ci sortie Ousmane Sonko bi. Euh, gis nañ moom mu jël benn position jàpp ne régime bi nga xamante ne moo fi nekk actuellement. d'accord Bougane. Bougane maanaam dañuy bëgg a tere nit ñi opposé wu tere nit ñi wax seen xalaat ndax à deux mois euh, ñu nekk ci boppu réew mi gis nañ arrestation yi convocation yi takkar naasi na ñoom jàpp nañ ni yéen da ngeen euh, da ngeen da ngeen bañ ñoom ñu opposé wu. bien arrestation yi ñaari ñaar moo amagum ñaari façon. benn bi. maanaam dañu xëppatal yi. pour ñu avant avant wax. dafa ne lay wax ak Imam Kanté. Hmm. ce qu'ils ont fait bu ko bu ko bu ko bu ko bu ko nawloo rek naa fekk nga hmm. taxaw wax lu bon bon bon ci doomu aadama hmm. ñun on amène la rupture moo wax le procureur a pris responsabilité dox li muy dox Ousmane yëgul tinul Bassirou yëgul tinul Pastef yëgul tinul c'est entre eux et le procureur ak la ñu wax ils ont des preuves de ce qu'ils ont avancé jëm seen yoon ils n'ont pas de preuves ñu faj leen en quoi le régime est, est mêlé deux quand deux deux deux deux organes de presse racontent des balivernes créent une situation qui pouvait déstabiliser le pays en citant beneen organe bu leen wax ni c'est faux je ne l'ai jamais nga dem jële article jaamul ñëw def ko à la une mu wax premier jour amul tole deuxième jour nga yokk ci kaa ni waxaat ñu ñëw woola nga ñëw taxaw dem foofu je sais naka laa ko mën a waxee expression bi ngeen baal ma tu regrettes ce que tu fait tu dis que da nga juum waaw ba ñu pardonné la en quoi la la la la ci régime bi yoon lu si yoonu régime bi lu si yoonu régime bi ils veulent se poser ils n'ont qu'à poser mais c' est parce que amuñu amuñu champ bu ñu opposé woo et puis Bougane depuis élection ak léegi dañ ko dégg ba mu naan on on veut les empêcher de il n'a qu'à avec euh, les armes qu'il a il est en train de le faire lui va dans télévision le vendredi. mais dañuy sélectionné ay nit yoo xam ni euh, ñaari baat ñett ñu sànni xeer ci régime bi loolu rek lañ fa nekkee le jeune euh, Talla. Oumar Talla Oumar Talla nga xam ni c'est un gosse boo xam ne ay analyse am c'est tellement c'est tellement pertinent ak tout état de chose mais bokkul ci seen liggéey li ñuy wax neexu leen et puis l'autre là Sëñ Saliou y a que ces deux là ils ne pouvaient pas faire ça à Sëñ Saliou mais ils l'ont fait à au gosse Talla ils l'ont écarté yóbbu ko ci grande gueule donc bàyyi fa sëñ Saliou hier sëñ Saliou n'était pas là-bas le champ était libre pour dire ce qu'il veut et ce qu'il fait ce qu'il faut faire. mais Sénégal demandé sax à ce que sëñ Saliou. sëñ Saliou il a <laughs> quitté il a il a il a respecté ce que les Sénégalais lui demandé et a quitté parce que nag dëgg-dëgg il se il se défendait très bien selon moi xam nga il menait toujours le combat mais malheureusement. les Sénégalais bokk na man gis-gis man a daf fay que il n'a jamais été ridicule mais comme Sénégal yi demande na ko il a accepté il a quitté démb Ndoumbelane c' est comme ne Ruy euh, monsieur Ba cere yu amul xorom personne n'en voilà donc Bougane est en train de s'opposer avec sa télé donc am na lu ko doy Bougane bala muy wax wax opposition mais na def son droit de citoyen son devoir de citoyen il doit des impôts au, il n'a qu'à payer ses impôts toi tu tu tu tu, tu règles tu ne fais pas tes devoirs et tu réclames des droits ngay wax lu réew mi mën ci man waxal loo mën a réew mi yaa ngi liggéey nga jël TVA jàmbur lekk mm-hmm. ba taxaw naan baal leen ma ba pay ñëw taxaw de dina mi damay opposé wu il faut s'opposer il n'a qu'à s'opposer ñun bañu ñu ko opposé de mais képp koo xam ne wax nga teg nga sa tànk fu teguwul wala nga wax nga lu waxuwul dinañ ko régler ce pays là mm-hmm. dinañ ko diriger avec toute la fermeté qu'il faut mais seen fermeté boobu ngeen wax nit ñi dañuy jàpp da ngeen menace da di menacer nit ñi parce que boo leen nee ce pays là on va la diriger avec toute la fermeté qu'il faut. Mhm. maanaam da ngeen di xëpp nañu pour ñu bañ a wax. yéen attendez quand on parle de fermeté dañ ko teg dans un cadre quelqu'un ne peut pas dire des vérités dire des choses qui intéressent le peuple dire des choses qui éveillent le peuple nga ñëw naan da ngay teg sa fermeté ci kawam. quand on parle de fermeté c'est les dérapages on parle des dérapages moo tax ñu wax fermeté l'instituteur il di ma classe je vais la diriger avec fermeté que les gosses apprennent leurs leçons que les gosses soient disciplinés est-ce que menace la pour que kenn bañ a indi doomam foofu non ce n'est pas une menace du tout la liberté d'expression dañ ci bokk dañ koy prôner loolu la ñu bëgg loolu la ñu mas a jooy mais une liberté d'expression dafa am fu muy yem ñu ko cadré dans tout juste la vérité mais nag sos bëgg ko dugal ci cadre euh, liberté d'expression ça passe pas on va diriger ce pays avec toute la fermeté qu'il faut. mais ba ngeen opposé wu tam gis nañ ni euh, seen leader Ousmane Sonko moom lu mu wax lu leer la. Ah, saagawul waaw mais dugul rek masul saaga masul xas. dafay wax ni diw lii nga bëgg lii ngay def xam naa ci lii xam naa ci lii. mais déggoo li ma la wax ay ca bu boobaa lu tax magistrat yi jël ko lu tax magistrat yi ko Ousmane sonk lu muy wax teg na ci baaraamam te buy wax du joxoñ du def wax en dans ce cas d'espèce étant opposition il disait yow Bintu wala yow Mayaabe lii nga jógtee ànd ceeg diw ak diw ak diw xam naa ko yëg naa ko kenn mësu ko jël si j'ai des preuves kenn mësu ko jël si lu tax woowuñu ko laaj ko mais tey jii ñun ñu nekk ci réew mi ku ko mën a waxee noonu waxe ko noonu lu mel na fekk nga li ngay wax nekk dëgg waaye bu dul dëgg ñu faj la ku ko mën. mais est-ce que tamit jamono jooju Ousmane position bi mu taxawee woon euh, gis nañ ko ko laal xale yëpp jóg réew mi du am du ñu am jàmm ñu bañ kaw am ci réew moo tax ñu ko doon bàyyi mu wax lu ko neex mais si yéen tamit nag dangeen nangu accepté tamit loolu. kon yow c'est parce que xale yi ku laal Ousmane Sonko mu jóg. moo tax attendez attendez moo tax Ousmane Sonko doon abusé di wax lu ko neex. Ah, ñu bare juum nañu. lu mu wax dëgg la te lu mu wax mu ngi téye ay preuve yu ko matale ba rapport Prodac bi il l'avait mais piège bi ñu ko dugaloon tax wanewu ko pour ñu jàpp ko pour euh, recel de de document administratif tey jii tout lui donne raison tout lui la seule condamnation qu'il a mooy euh, Prodac te tey tout le monde sait que Mame Mbaye Niang a été mais jamono jooju comme euh, le rapport n'était pas encore sorti officiellement bu ko génnoon ñu jàpp ko recel te c'est un juriste comme eux comme les juges comme les avocats comme les magistrats fan ñu jànge droit la jànge droit il n'est ni avocat ni juge mais il connaît le droit mais loolu rek moo lay wan ni lu mu wax am na fu mu ko teg tey jii dans les parmi les opposants ku ci am loo xam ni mën nga ko critiquer gouvernement te am lu firnde lu leer wax ko noo ko bëggee waxee ak foo ko bëgg waxee mais pourvu que la bu ne kaay nga ne lii tax ma wax ko ñun ban koy wax dañ ko ñeme woon te kenn ñeme woon woowu parce que lu ñu wax ñoom dañu dem ba seen biir te Ousmane Sonko ma waxaat la benn biir wax yooyu nga daan wax ni mu naan wax yu dëgër boolewu ci saaga nag boolewu ci wax dara mais du wax en parabole da daan joxañ mais bu joxañee. au lieu ñu jël si ko ni ko li nga wax lan la ñoom dañ naan réunir seen biir naan lii mu wax ku ko wax. maanaam daal kan mooy tuub bi doon wax dëgg la du waxee kenn du ko jël si mais bu waxee ñoom dañuy réunion seen biir toog bay joxoñante ba ku ne di xool sa morom li mu wax kan moo ko ko wax mooy c'est parce que li mu wax taxaw na parce que li mu wax dëgg la ku ko am tey wax ko oppose-toi comme tu mais tegal lépp ci dëgg. je répète que ces pays dañ koy diriger avec toute la rigueur qu'il faut il l'a jeex na tàkk lépp ci yoon. leer na ñu ñëw ci nomination yi gis nañ euh, yàgg mu nekkoon ca euh, police ba dindi nañ ko indi fa keneen ku yees euh, le président Bassirou Diomaye Faye fànn yeneen nomination yi ñu jàpp ni. maanaam lépp li nga xamante ni moom moo fi nekkoon ci nguuru mag Sall lu leen doon yàqal lañ jël ko xool ñu compétence xool ñu dara loolu lañ leen ci mën a wax. mais attendez di ku nekk da ngay diriger ak seen nit yi nga am na fa sax waroon na fa jóge ba yàgg ñun ñoo diri ñun ñoo ñun ñoo ñun wóolu ñun lañ jox nguur gi ñun ñu wóolu la ñu teg yàgg wóoluwuñ ko dégagé nañ ko seet ku ñu wóolu teg ko fa. mais opposition bi jàpp nañu ne tey Sénégal bu bu tombé wu dans le ñoom tamit seen seen liggéey bu am am solo moo ko moom moo ko waral. bu Sénégal tombewul dans le chaos mooy la. mooy maanaam li nga xamante moom moo fi doon am ci ay manifestations ay ay mbir yoo xamante ni gis nañu. pourquoi vous aimez parler des conséquences et laisser les causes. Mm-hmm. pourquoi vous aimez et laisser les causes. Mm-hmm. les manifestations les Sénégalais ne se sont un seul jour rek tëb ni ay ci nañ dem manifester wu. quelles sont les causes lu ko indi. convoqué ko tribunal ñaari nit kenn ki jaar fu ko neex dem tribunal keneen ki nga ne ko doo jaar fii benn. Hmm. convoqué na tribunal muy ñëw nga ne ko non non doo jaar fii foog nga jaar ci suuf pont bi mun la par mesure de sécurité du ma jaar suuf pont bi coow li mel ne tout la nga toj otoom xëpp kay kii. coow li mooy jóge Casamance di ñibbi jaar ci yoon wi peuple bi di ko dogale di waxtaan ak moom muy saafante ak ñoom nga jàpp ko mànkaañ ko dugal ci oto gendarmerie indi. Hmm. loolu le peuple a dit sunu leader bi nga xam ne moom la ñuy fal 2024 moom la ñu wóolu moom la ñu bëgg mu nekk président wala ku mu wóolu nekk président ngeen bëgg ko faagaagal nanguwuñ ko jóg di manifeste un droit constitutionnel ñu toog fii pour la première fois nga gis nit taxaw armée fusil dóor ko xalal bal tel mu tëdd mm-hmm. nga gis fii boo takkee bracelet Pastef sax ñu jàppale yóbbu bu ñu jàppee sa nit police nga xam ne amu fa lekk amul lu mu naan nga jënd lekk yóbbul ko ñu téye la buñ ko defee au parquet yóbbu ko wala ñu yóbbu ko mandat dépôt nga dem tom wuti autorisation pour seeti ko ñu jàppale tëj peuple bi ko seetaan yow nga ni la ci es le commissaire xooloo dëkk xooloo li wax nga topp ay or ay ordre flou di def la neex tey ñu dégagé la ñu am luy wax on l'a dégagé on cherche quelqu'un à qui on a confiance et qui la police mu régler la police avec tout le respect qu'on a pour les forces de sécurité et de défense. kenn ku nuy kuy diriger ña nga wóolu ña nga bëgg ñu mën a doxal sa politique ngay teg moom nag Macky moom la wóolu woon tegal foog muy defal Macky la mu bëgg ñun nag kii la ñu wóolu tekk fi muy def li askan bi bëgg. d'accord euh, euh, euh, ni ba général Kandé. Mhm. Euh, gis nañ ay ay nit yoo xamante ni génn nañ féeteeg euh, opposition bi APR. Mhm. nee nañ il était extraordinaire tey Casamance bu ne cocc ci wàllu rébellion moom joué na ci loolu am solo mhm. kon jàpp nañ ni maanaam affaire de politique politicien moo tax ñu ñu ñu. mooy d'aucuns disent qu'il a été très très bien contraire. ah am na ñuy wax ci moom ay wax yu baax mais c'est toujours le cas. de l'ancien régime mais am na ñuy wax leneen quoi qu'il puisse advenir c'est quelqu'un qu'on doit respecter c'est une haute personnalité de l'armée sénégalaise ñu war ko jox gëddaam na mu waree c'est un général ñu war ko sargal tatagal ko loi may na ñu affecte ko fan ko war a affecté yóbbu nañ ko te fan ko fa yóbbu moroomu colonelam nee na du humiliation à la limite c'est une affectation ñuy souhaité mu dem liggéey fa liggéey bu rafet bu mel na ba ñu wax ni def na ko Casamance loolu lañuy ñuy ci moom quant ñeneen ñuy wax nag ah. non Madiambal quand tu me parles de ma Madiambal. Mhm. tu sais quel est son problème je vais le dire aujourd'hui quel ñu ngi toog tey le premier. dans quelque temps. ci sunu yoonu rek réew mi dinañ dal ci ma kaw ma Madiambal xam na ni ci yoon bi ñu jaar du ci échappé parce que malversation bu am ma nga ca biir. ci réew mi léegi nag Madiambal cherche di wax ay wax yoo xam ne pour ñu jàpp ko pour mu am ay alliés de la presse comme quoi woy woy woy ay délit de presse ay yu kenn xamul yooyu. dafa bëgg a dafa bëgg ñu jàpp ko. presse bi nekk si wetam dañ ko jàppee pour euh, noppiloo ko ak tout de bët ba tax na ëllëg leneen lu génn jëm ci kawam ñu ni voilà ça continue Madiambal conjugue le verbe patienter bientôt bientôt ay malversation yoo def sa kaw la jëm taluñu la suñu yoon lay dox discrètement et sûrement mais li ñu defar dëkk bi ma jàmbal li ngay woote duñ la ci topp du président moo lay tontu du premier ministre moo lay tontu du benn ministre moo lay tontu ñun rek ñooy ñoo lay expliquer ni mhm. sa stratégie bi nga jël du dox du dem. il faut dire qu'il s'était ah, day provoqué daal loolu nga bëgg a wax. day provoqué day provoqué dafa dafa am fu bëgg a yóbbu duñ fa ànd ak moom duñ fa yegg ak moom. Mhm. fa mu bëgg duñ fa yegg ak moom. gis nañ aussi beneen opposant euh, euh, Moustapha Diakhaté. dé gis nga ko nee nañu au lieu ngeen euh, euh, passer à des choses mais du ngeen ko def da di wiir wiirloo parce que da ngeen tatone mënoo leen. waaw. kàddu yooyu fan. venant de Moustapha Diakhaté ça ne surprend personne ku saaga yonent bi loolu ñu wax duñu saf gëmul Maodo gëmul Bamba amul xam-xamum dara te nag maa ngi koy wax fii mm. ni que qu'il arrête. Moustapha Diakhaté qu'il arrête mm-hmm. s'il n'arrête pas dinañ ko wax moom mooy kan. ay menaces la. donc moom foofu laa yem. c'est au boo xam ni. Mm-hmm. sur la plan politique. Mm-hmm. amul base politique kenn ràññeewu ko fa mu bokkoon dàq nañ ko booleetul ko ci dara. il cherche à exister en faisant les plateaux chaque semaine benn plateau pour continuer à amul benn valeur il n'a jamais rien apporté au Sénégal bañ nañ ko ba kii nga xam ne tey mooy defar Sénégal am espoir moom moo woon pour ñu faagaagal ko il n'a qu'à se taire Ousmane Sonko du moromam yemul ak moom bokkul ak moom Jomaay du moromam yemul ak moom bokkul ak moom. bokkuñu sax gis-gis bokkuñu ambition peuple bi ñii la gëm gëmu ko su mënee ànd ak peuple te changé jàppale ñii su ko mënul na noppi te mu wax lu am fayda quand le peu quand le le le le régime est venu amaguñu deux mois mu toog naan di critiquer pourquoi parce que ñun de wax def jëf lu bari nopp ni pat li ñuy def dañ koy def di dem. le premier ministre est sorti avant-hier pour dire que muñ leen tuuti dans quelque temps di ngeen gis yoon bi ñu tracé ils le savent xam nañ xam nañ ni dans quelque temps yoon bi buñ ko wàccul ils n'auront même plus de champ pour s'opposer ils veulent détourner l'opinion mais nit ñi faalewul leen les gens m sa couple Diomaye Sonko donc qu'ils laissent ces gens-là travailler pour le accord ñu ñëw ci sortie bi comme dugg nga ci euh, euh, euh, gis nañu Ousmane Sonko génnam keroog. <coughs> suscité waat na bu baax a baax ay polémique à travers les réseaux sociaux ñii di ko gisee nii ñii di ko gisee neneen. Mm-hmm. parce que évoqué fan évoqué na fa ay sujets yu bëree bëri. Mm-hmm. nee na askan bi li nga xamante ni. loolu lañ leen dénk ñoom ñu ngi ci bu baax a baax. Mm-hmm. waaye dafa am leneen loo xamante ni daf ko wax. ci mm-hmm. wàllum euh, réduction des comptes balaa ñoo ñëw ci journaliste yi. mais mm-hmm. képp ko fi. ku ku seexloo moom di ko yàq ko goqi boobu nag instant yi la Sénégalais di wax naan Ousmane Sonko day menacer les gens ou bien. mais attendez ce mot menace est venu dans notre dans entretien au moins dix ah, fois. Ousmane il est dur quand il mais il dit ce que le peuple exige et veut l'ancien régime dilapidé nañu dëkk bi sàcc nañu sunu xaalis lubal nañu sunu xaalis labaj nañu sunu xaalis bool bala nga ci def da koy raxas on est en train de faire les assises de la justice sunu pare ñu génn ñu mettre les hommes qu'il faut aux places qu'il faut sunu paree ñu yëkkati. tous ces rapport jox leen rapport yi nag ñi mu épinglé ku ci sex loo moomul di nga ko yàbbi ku lekk xaalisu askan mi di nga ko yàbbi c'est une menace prenons-le comme ça c'est une menace mm. nous sommes en train de menacer ceux qui ont bouffé l'argent du pays le premier le président leur a donné un champ daw leen waaxu si ci duus ngeen joxe ci duus ñu suturaal ñi ko mën am na dégg naa ñu koy def. Ah, am na ñu xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di joxe ndànk-ndànk ci toog waaye képp koo xam ni sex nga alalu askan mi te moomuloo ko dinga ko yàbbi le premier ministre laa di et c'est strict wax ni nag mm-hmm. askan mi li ngeen di yaakaar ci ñun te sant ñu ko ñu ngi ci. ñu ngi koy dox ndànk ndànk et sûrement ñu ngi ca jëm may leen lu tuuti patience ci lu yàggatul di ngeen ko gis li mu wax see très clair su fekkee menace ngeen ko jëlee wéy. ah parce que ñu nous menaçons mais nu menaçons qui ceux qui ont volé l'argent de rendre ou bien d'aller en justice jàppe ko noonu. am na ñuy fay ci suuf. fu ma déggee bu baax. waaw dégg naa dégg naa loolu moom dégg naa loolu am na ñoo xam ne ñu suuf di régler seen problème. mais ñenn ñi nga xamante ni moom nanguñu euh, euh, euh, maanaam fësal seen bopp wala nanguñu li nga xamante ni moom rapport yi génnee bu ñu fayulee ay station na ci mën a topp. non ça dépend cest à kii fay ki wax ni mi ngi jaar ci suuf di di joxe. Mm-hmm. peut-être dafa dafa nangu ni jël na. Mm-hmm. keneen ki nga xam ni demul. Mm-hmm. peut-être dafa jàpp ni jëlul. et ça c'est la justice qui le dira ce n'est pas nous ce n'est pas lui ñun on fera on prendra les rapports les rapports qu'on au procureur mu jaar ci processus normal bi ñun ñu ko ni def suñu liggéey bàyyi justice bi def liggéeyam su ko justice bi ci seetalee ñun du moom mais du moom mais bu ko justice bi jàppee il il paiera les conséquences d'accord loolu leer na ñu ñëw ci li Ousmane wax ci journaliste yi. je n'ai je n'ai de compte à rendre ni aux journalistes encore moins aux hommes politiques. Ah ñëpp na Ousmane Sonko waru woon waxee. loolu parce que jàpp nañ ni. Ousmane Sonko sax ay waxam yooyu bu bu bu bu bu tasee àdduna wala bu wëree presse bu ci la bokk. Mhm. kon amaana mënoon na am beneen euh, maa mënoon na gën a wodd wax di wala rafetal ko. Mhm. ci ni nga xamante ne noonu la waxee. ci très bien vous me donnez une occasion extraordinaire. Mhm. et je remercie. pour expliquer au peuple ce qu'a dit Ousmane Sonko. d'accord. li ñu askan mi yaakaare. li ñu askan bi sant li askan bi bëgg ñu ngi ci du ko dox ci lu yàggul di ngeen ko gis je n'ai pas de compte à rendre ni à la presse ni à l'opposition mais au peuple bien une certaine presse se sent frustrée opposition bi une certaine opposition se sent frustrée mais cette presse là concerné wul boolewul boppam ci peuple bi cet oppo cet opposant là boolewul boppam ci peuple bi c'est-à-dire que c'est au peuple qu'il rendra compte qu'ils rendront compte par le biais de la presse mais ils rendent pas compte à la presse du déedéet du noonu la waroon waxee ni mu ko waxee noonu la ko waroon waxee ma ne noonu la waroon waxee je déedéet waxuma noonu la waroon waxee dama ni ni mu waxee noonu la waroon waxee c'est vous qui devrez comprendre ça comme ça. nous ne vous rendrons du leen rendre compte à vous la presse mais c'est par vous qui rend la le compte au peuple Bintu. Mm-hmm. Ousmane Sonko ne viendra pas te rendre compte en tant qu'élément auxiliaire de la presse mm-hmm. ci yow lay jaar pour rendre compte au peuple boo ñibbee si kër nga déglu ko xam ni man mii en tant que euh, sénégalais. par le biais de la presse Ousmane Sonko m'a rencontré m'a rendu compte gisee leen ko noonu pourquoi ngeen bëgg lu tax lu Ousmane Sonko nag ma wax la benn lu mu wax c'est mûrement réfléchi il a parlé et très bien parlé nous ne rendons compte ni à la presse ni à l'opposition mais au peuple que presse bi qu'il se contente de faire son métier relayer le compte rendu mais c'est pas c'était pas destiné à lui il relaie le compte rendu mais c'est pas destiné l'opposant qu'il écoute en tant qu'opposant mhm. le compte rendu mais c'est pas à lui c'est au peuple su presse bi sumee yëre presse am opposant bi suppi yëre opposant bu ñibbee këram toog en tant qu'élément du peuple mu déglu compte rendu xam ni ça lui est destiné bintu compte rendu bi day jaar ci say loxo moomu loo ko en tant que moomu loo ko en tant qu'élément de la presse da koy relayer boo ñibbee sa kër nag ba summi sa mbubb ci naalis sangu ba set frankulaay sa kaw la di seetaan télé nekk peuple nekk euh, euh, sénégalais nga diglu compte rendu bi nga wax ci la la ci saf ak la la ci neex c'est comme ça que président Ousmane Sonko a parlé il n'y a pas de polémique il a ah, noonu la ko waxee te noonu la ko ñi ko ñi ko bëgg dégg yëpp déggee mm-hmm. te nag la presse mm-hmm. la presse nag yéen attendez il faut ngeen def ndànk kenn du leen tudd suba soo leen yeewoo yéen a ngi tudd nit te kenn du leen tudd boo nee la presse rek àddina tukki boo nee la presse rek àddina tukki mais nous vous respectons c'est vous qui nous donnez des informations c'est vous qui prenez les risques c'est vous qui passez des nuits blanches à nous chercher des informations qu'il faut pour nous mettre au, bain de toute la situation mondiale internationale mais néanmoins yéen. dafa am benn code boo xam ne moo leen téye seen code de déontologie ngeen respecté ko te yam ci loolu ku ci wax lu ëpp ñu faj ko ku ci wax lu baax te jaar yoon ñu honoré ko mais nag vous n'êtes pas au de la wax comme man mi tey jii lii may wax fii am na loo xam su ma ko waxoon dérapé tey ëllëg tudd nit wala ma wax dara ci lu ëpp ci nit bande bi lay tagg yóbbu ko porte ma plainte ñu faj ma quel est le problème je ne suis pas au-dessus ah, parce que am na ñu bëri dañuy wax naan euh, ñoom dañu bëgg rek maanaam presse bu yëpp hmm? bokk di gisee benn gis-gis. parce que gis nañ aussi ay journalistes yoo xamante ni buñ toogee di def di animer ay débat da gis carrément ni ils sont ils sont ils sont des partisans de Pastef. ñu wax ko ak ñaax ko wax. vous le pensez. ndax wax non wax dafa nekk loo xamante ni boo communiquer rek nit ñi buñ la déggee dañuy xam ne kii kat mais dañuy dem ba sax dañuy euh, maanaam. défendre. dañuy défendre Ousmane Sonko. waaw dañuy défendre président Bassirou Diomaye Faye. Mhm. ñenn ci presse bi aussi itam dañuy gis ñoom dañuy jël position. di d'accord ñu ak ñii nu ñu waxee nii ak nii ak nii. c'est comme ça que ça devrait mais mais bu fekkee nag. xaaral xaaral nit nit rek la. ce di tu am na ñoo xam boo leen gisee ñuy wax di dëgg ils ont tendance à défendre même le régime d'autres boo leen déggee da nga naan dañu contre le régime mais na lépp nekk ci dëkk kii défendre na. daal bu am daal dérapage kii défendre. Mhm. na défendre ci biir dëkk. kii critiquer na critiquer ci biir dëkk. et il n'y aura pas mais nag la problème mooy kii défendre bu mu défendre au point où yaakaar ni kii. ah euh, il est infaillible kenn aussi bu mu yaakaar ni lu kii def mu xëpp ci suuf c'est pas normal mais loolu la logique di demee dans tout le monde ça se passe comme ça va dans le procès de de de Donald Trump aux États-Unis euh, la presse américaine dañ diviser wu ñii sont pour ñii sont contre c'est comme ça mais yëpp nañ ko teg ci logique. d'accord leer na ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, assise de la justice bi nga xamante ni. le président Bassirou Diomaye euh, euh, Faye moom moo digle loolu à que rek ñu toog waxtaanee li nga xamante ni moom mooy justice di ay réforme ak modernisation ci wàllu wile euh, entamé nañ ko depuis le 28 fële ca Diamniadio gis nañ ñi nga xamante ni ils sont pour am ñoo xamante ni jàpp nañ ni c'est du populisme. ñenn loolu lañ wax. xam nga Sénégal xamul lu mu bëgg xamul lu mu bëgg. Nous, a, nous avons promis que Bouniaxé, nous allons réformer la justice. Nous voulons un pays de droit. Nous voulons un pays de droit. Avant nous, ñoo des magistrats, waxoon na ci benn assemblée générale wax ba wax seen problème yu ñu am qu'ils veulent être libres gis nañ ni processus yi code de procédure pénale ak code pénal am na ci certains articles yoo xam ne vraiment da ngay waaru le président sortant, sinon l'ancien président parce qu'il est déjà sorti demoon na bu def benn genre assise bu ndaw. moom la Ismaïla Madior Fall wax. mais jël nañu loolu assise nationale waxoon na sur la justice mais jël nañu loolu mais assise nationale c'est ça date de quand ce que Macky Sall avait demandé de fair ça date de quand ñu actualiser ko tey naka. ñu jël tous les acteurs de la justice jël les anciens détenus la population civile l'opposition am na ñuy wax sax ni euh, waa opposition bi dañ leen fa may part boo xam ne moo ëpp part bi ñu fa am ñun. c'est pas c'est pas c'est pas notre problème ñu notre problème c'est pas ça. Hmm. ñoo nu fa ëpp ñoo leen fa ëpp c'est pas notre problème. ñun notre problème mooy pourvu ko ñu wax que dans les commissions def ay propositions yoo xam ne c'est le peuple qui a parlé. assise bu bokkul ak benn bii se le peuple qui a parlé qui a donné des propositions les commissions feront leur rapport et en fonction du rapport qu'ils ñu génn teg ay lu leer nañ ni li ci war a jaar assemblée pour nekk loi jaar assemblée nekk loi liñ ci war a xam ni par décret la war a jaar mu jaare par décret ñu boole yëpp tënk ko def Sénégal tegu ci yoon bu wér c'est comme ça qu'on le voit nous. mais ñëpp dañoo yaakaar populisme populisme pourquoi le président est allé bi mu ko ubbee ba léegi. mu dem toog kon na liggéeyam kon na ay voyage am wax li muy wax le premier ministre teg tegu fa sax tànkam waaw léegi commission yaa ngay liggéey seen liggéey avec toute la discrétion qu'il faut quel est le populisme ana populisme ba bu doon populisme kay chaque jour ñu xëy di ci wax di amadoué public bi mais moom ubbi na ko dem liggéey liggéeyam premier ministre xam ne président mi ngi fay ubbi amul lu mu fay def mu toog kon na liggéeyam commission ñu ngi koy liggéey di liggéey dans la plus grande déggatoo sax ñuy wax ci lool ñu ngi wax ci leneen entendant les rapports. fan la populisme nekkee. Mm. populisme bi kay mooy ki daan woote jël RTS mu toog suba ba ngoon di filmer ay nit toog fa di wax yu kenn xamul ñu jóge fan euh, euh, woote pour waxtaan ñu naan président da nga war def troisième mandat. Mm. ak yooyu c'est pas la même chose ñun nous avons une façon de fair et nous savons ce que peuple veut. donc populisme boobu ki koy utiliser na ko delloo na ko woon naan na xoolaat boppam bu baax a baax baax. d' accord ñëpp dañoo jàppoon ni maanaam day yomb président de la République Bassirou Diomaye Faye retiré wu ci li nga xamante ni euh, moom mooy conseil supérieur de la magistrature alors que affaire yi demee noonu ndax bu ñu gisee communiqué bi nga xamante ni waa UMS def nañ ko ñoom jàpp nañ ni loolu mënul nekk. waaw xam nga warul nekk sax nu sa dit que ni président de la République dafa war a génne ci man je ne vois pas comme ça parce que dafa mel ne da ngay bàyyi affaire boo xam ne day dem. Mm-hmm. c'est une petite incursion que la constitution lui donne pour mu am un cordon qui le lie à la euh, à la justice. Mm-hmm. qui une institution. affaire bi nekkul ci président jiite kook ñàkk ko jiite affaire bi mi ngi nekk ci ngooru président. mu am ngor gëm yàlla te xam ne ci incursion lañ ko may pour mu téye benn affaire bañ mu déraper. mu bañ ko def arme. président bañ ko def arme. ba tax na mu koy utiliser pour ku ko ku mu sant nga bañ mu sanctionné la ku mu ni defal li defaloo ko mu sanctionné la tout l'état mais mu gore xam ne lii daf ko téye pour ne aussi euh, euh, laisser passer une euh, comment est-ce qu'on dit une république des juges. loolu rek lay jëriñ mais man d' accord pour président lâchel foofu président il doit rester toujours diriger le haut voilà man man président warul bàyyi mais nag. dafay doxal yoon ma wax la benn affaire tey ñëw bokk parti man moom maag président ñoo bokk parti mooy sama président ma jox ko cër mais bu bu jëfee au conseil de la magistrature di ko doxale naka ñeneen daan doxale man maay jëkk a génn joxoñ ko ni ko président ni nga ko defee du nii la nga diggoon du te xam naa ni moom ngoram njàngam dalam teeyam bëggu réew mi ak bëggu état de droit il na abusera jamais surtout toujours il n'en abusera euh, fu may ñëw ci mooy euh, ñu bëri jàpp nañ ni moom ak Ousmane Sonko bokkuñu caractère ndax Diomaye le président Diomaye euh, à chaque fois boo koy gis muy wax. day wax ci euh, maanaam rassembler mobiliser ñëpp nekk jàmm alors que Ousmane bu ñuy gis ay discours am euh, maanaam il est il est il est discours maanaam da gis day waxee xadar. Hmm. ils connaissent pas Diomaye. ah bon. les qui le disent. Hmm. ne connaissent pas Diomaye Faye. Ah. le président Diomaye Faye. Hmm. par il est très calme. très correct mais je connais en lui une personnalité boo xamante ni rien n'a l'impression personne n'a l'impression dafa tolloog ni uh-huh. il était second avant qu'il ne soit président de la République uh-huh. kee am une certaine rigueur moom muy rassembler uh-huh. il devient président de la République son rôle est de rassembler mu kon ne waxee noonu mm-hmm. ku ci abusé ba def loo warta wax ba def loo warta def wala wax loo warta wax. tu tomberas sur sa rigueur. je vous le dis mi may dégg. Mm-hmm. ku xam Diomaye mi may dégg. Diomaye est plus dur que Ousmane Sonko. Ah je peux dire sax deux fois plus dur que Ousmane Sonko. seulement tànk yaa ngi tegu ci yoon tànk yaa ngi doxal yoon doo xam ci ko Diomaye waaye loo ko jege jege loo ko bëgg bëgg bis boo teggee yoon di nga xam kan mooy Ousmane kan mooy Diomaye Faye Diomaye est deux fois plus dur qu'Ousmane ok waaw mais rek rassemblement lay def tànk que nit ñëpp ngi jox leen doxal doo gis jikkoom mais kis ku teg yoon loo ko jege jege et ça le dis à ceux qui sont proches et qui ne le connaissent loo ko jege jege ak koo mën a doon am na noo xam ne boo ko doxalee mu tegal la ci raay bi sans état d'âme et euh, ku bëgg ku bëgg a ku bëgg a juger euh, euh, Diomaye ku bëgg a juger Diomaye te bëgg ko xam dama lay jox benn indice mm. Diomaye est le président du Sénégal. Mm-hmm. avec tout le respect qu'on lui doit. Mm-hmm. na ko mën na ko. Mm-hmm. et dañu jàpp ni c'est le meilleur président qu'on ait choisi on verra mais c'est le premier c'est le premier élément du fan club Ousmane Sonko. waa parce que jikkoom neex na ko rigooram neex na ko. jubam neex na ko xam-xamam neex na ko magam la te fonk na ko bañ ko ba tuddee ko doom. gis nañ complicité très bien. les jumeaux du te loolu loolu yàgg na. complicité boobu yàgg na. dans le parti quand président était président du parti il ne faisait rien sans avoir consulté Diomaye ou Birame Souleye quelqu'un d'autre mais surtout Diomaye seen complicité yàgg vous avez les jumeaux du peuple voilà ce qu'on doit les appeler mais bañ a toog di jéem entraver seen diggante. dëgg la leer la laaj aussi li Euh, mi nga xamante ni dañ ko accusé d'escroquerie foncière portant sur une somme d'un milliard. heureusement heureusement que l'État n'y est pour on aurait dit on aurait dit non on aurait dit. voilà c'est c'est un homme proche du fils du président ou c'est un homme proche du président. Mm-hmm. Euh, voilà le qui heureusement que c'est un problème purement civil. Mm. Quand même. mais dans cette affaire-là dans cette affaire-là. Mm-hmm. un problème purement civil qui atterrit à la DECO. Mais au cours des enquêtes, si ce qui est dit est avéré, il cite le nom du président de la République, oui. de l'ancien président de la République. Mhm, Macky Si ce qui est dit est vrai, mhm. il dit que moo ko jox yooyu ni ko jaay ko nga jël ko xaalis bi pour une mission secrète. ma ni l'affaire doit prendre une autre tournure ça devient plus civique. Ah, parce que li nga xam ne moom mooy. day génn cadre civique. la la procédure bi nga xam ni c'est entre euh, deux deux de kii civil. Mhm. de civil day jàll day continuer mais néanmoins lu tax mu tudd président. Mhm. lu tax président jox ko ko mission secrète boobu lan la. foog ñu faranci fàcce ka ba mu leer nañ il paraît que si j'ai bien suivi il a cité même des noms ba am na am ñoo xam ne jël si na leen ba déglu leen dégg naa ci cadre dégg naa ci benn musicien dégg naa ci benn kii dégg naa ci benn kii donc Dora va parler Dora nag j'ai comme impression que day mel ne naan ci dugg man kenn ah dégg naa keroog ba ñu koy euh, ba ko enquêteur a déglu sax il a fait un malaise là bi nekk dañ leen def de dépôt waaw Doro avec tout ce qu'il a fait. Mm. ak li ñu koy jiiñ yëpp. Mm-hmm. Doro il paraît que moo doon financé ñi nga xam ñooy saaga Ousmane Sonko. Doro il paraît que moo doon neexal nervi yi. Ah. il paraît là ah. il paraît waaw mm-hmm. deere yëpp nervi yi jàpp doomu aadama yi di dóor di saaga. Mm-hmm. da ngay dem mandat de dépôt kese mu xam. xanaa moom bu ñu ko condamné woon day dee kon yéenewu ko loolu waaye na dëgg gi jib nag yéenewu ko vraiment loolu wax dëgg yàlla yéenewu ma ko loolu man je le connais même pas ma ko loolu. seulement nag dégg naa benn activiste boo xam ni il a toujours dit Doro Doro wax ci moom ba quelques fois je me disais mais en fait kii quel est son problème avec Doro mais aujourd'hui dafa mel na li mu amoon il a il a plus ou moins raison il a plus ou moins raison mais nag ñooñu ñu suscité le fils du président comme le président de la République il faut mu ñu xam lan la. nga enquête yi daal léegi nekkatu affaire civile c'est au-delà. non non affaire bi day continuer certes parce que dafa truander ay xaalisu jàmm da koy delloo mais nag ñooñu mu ci tudd. ñu ñoo ko jox pour mission secret bi na wax lu tax ñu jox ko mission secret boobu lan la. foog mu wax mais le président euh, Macky Sall la président Macky kilifa la. du waajee jóge fee ñëw ni ne asalaamaaleykum maaleykum salaam tudd Macky Sall da nga dem jëlee Macky Sall déedéet. na wax lu tax na wax naka la na wax lu ko chargé. ñu xool loolu lux móot ko ba xam ne avéré la noo wax mission secrète boobu loolu la. lu lu lu doon defar askan bi la wala lu doon defar dëkk bi fa lillahi alhamdu lu doon yàq-yàq gu bon la ñu enquête ba xam ni lii dëgg la ñu soogay mën a wax ak président de la république mais pour la moment benn jàmbur du ñëw rek nii way Macky rek on va emmerder Macky Sall non non non non non Macky Sall sur autre on a d'autres choses yoo xam ne mën na ko lijjanti ak moom. d' accord <laughs> leer na mënoo ñëw na te comme dañuy waxtaanee la tudd l' actualité euh, politique te ku ne xam na ni tam euh, euh, maire Woré Sarr génn na fi nga xamante ni moom mooy PDS. Mhm. ginnaaw remaniement bi nga xamante ni am na fa. Mhm. ba place bi mu occupé woon. Mhm. ñu jox ko Fatou Sow poste de présidence nationale des femmes génn na fa nag nee moom. dañ koy rey rek mais duñ ko déshonoré te jël na lépp këpp ko euh, ci ginnaaw euh, Karim Wade ak porte-parole bi ban jàngat nga ci am. jàngat politique rek. PDS dafay tas ça tout le monde le savait le PDS n'existait même plus et là et le reproche au président Ousmane Sonko. Hmm. l'intercoalition boobu. moo ressuscité PDS moo tax ñuy rey Lamine tey si j'étais parti seul aux élections là tous duñ ko am législative bu du woon combinaison boobu dara duñ ko am. ah mais PDS tam ku xam na euh, benn affaire. Uh-huh. PDS ça fait presque plus de huit ans plus de dix ans ma gëm ni la fay am yépp doom président bi la doom président Wade Karim Wade. président Wade taratu loolu. il a 97 ans xool chose comme ça 98 ans barki démb amul lucidité sax boo xam ne mën na concentré naan di diriger parti buy ñëw sax dañ koy préparé dicté ko ba nga xam suy ñëw la il a fait son chemin defal na Sénégal li mu mun defal Sénégal nan ko may mu noppalu mais c'est Karim Wade qui dirige le euh, le, le nu mu ko neexee mais du yéene du yéene bu bon mais xam nga dëgg yenn saa dafay dafay jam lu leen dikkee lu leen arrivé ñoo ko teg seen bopp gone gu nekkoon prison ñu jiiñ ko li ñu ko jiiñ def ko li ñu koy def mu toog def protocole boo xam ne yëguñu ko ñëw xamuñu lu ci nekk jet privé ñëw jël si ko fii mu jaar seet sëriñam dem changer yére ci kër ma Madické Niang jël jet privé dem yoonam depuis lors bu dul benn SMS bu dul benn coup de fil xamul lu yomb demul yomb même ñoom bi ñu ko defee candidat ba déposé na ko sa candidature il s'est même pas donné la peine de prendre l'avion et de venir voir une chose aussi sérieuse qu'une candidature de la présidente de la République booy boobu daf leen yàpp ma ne su fekkee dafa war a diriger PS PDS mën na ne pourquoi pas mm. mais na ko def na ñëw ñibbisi fii toog téye parteem doxal ko. mais bu mu làqu ci ginnaaw papaam di def yenn yi. c' est que poltron poltron boo muy def làqu ci ginnaaw papaam di def yenn yi la war a baax. te nag dégg naa benn waayu presse mu wax ko ni ma est ce que mooy bis bu nu officialisé ni Ablaye Wade retiré wu na euh, Karim Wade jël na PDS tas. Ah waaw des gosses ma bu nu ma sànni dem. ba mu méttee. Mm. ñuy dem point di seeti Ablaye Wade toog moom di waxtaan ak moom. danaan sieste ba pare romb taxaw génn fekk leen ñu toog mu xool leen ba seen yëngal boppam génn dem yoonam doxi soxlaam tey kooku moo leen bëgg a imposer naan maa leen di gérer maa leen di orienté booy yi nee na pour ñoom gëmuñu ni loolu dina am mais ñu ngi toog di xaar bis bu téye PDS gars ñëpp rocce ko ci ko faat PDS bi. ah mais yow sànq dégg naa nga ne PDS PS Pado mais euh, ci élection yi gis nañ euh, suñu président le président Bassirou Diomaye tàllal kan loxo n'a pas bokkul ci coalition bi de. bokkul suñu coalition. ñëw rejoindre coalition Diomaye déedéet. nous avons fait appel à l'opposition pour ñu ñëw jàppale ñu. nous n'avons pas signé individuellement le PDS. Karim sachant que bokkul. Mm. te xam na ni lii bal bi takk na. nous le, nous, je le remercie, il a dit je, je soutiens la candidature de Diomaye mais bokkul suñu coalition dafa soutenir et demander à voter pour. bu ko defoon ñu jàll bu ko deful woon ñu jàll. dafa xam ni bal bi tàkk na mëntu ci dara contrairement à Bougane il a été malheureux tey ñu ngi koy waxtaanee loolu laa waxoon Bougane ni ko kaay doon yokkal dara doon ñu wàññil dara mais l'histoire retiendra il n'a pas voulu m'écouter gis nga li ko daal léegi nag Karim Wade xam na ni bal bi tàkk na du ma dem bàyyi fi on on l'histoire retiendra mu sànni baatam je sujet la candidature de Diomaye et je demande à voter Diomaye c'est comme su fekkoon ni il avait participé totalement yaa ngi koy wax ni tey voilà la politique. ok ok d'accord donc ñu tëjee ak bi temps bi yaakaar naa ni xoj nañu communiqué bi nga xamante ni waa APR def nañ ko. waaw. yéen nga ko. waaw. appel à la mobilisation remobilisation sax la ñu wax dee tout euh, dem fépp fu seen ay militants wala sympathisants nekk partout un peu partout. Ah, fii ak bitim réew. ndax ñoom jàpp nañ ni. Mhm. réew mii ah bu demee euh, waxtaan ak askan bi maanaam mun nañ ko jotaat ci seen loxo. mais askan bi leen vomi il y a même pas deux mois. nee nañ nee nañ nee nañ yéen mënoo leen mënoo leen ñoom daal jàpp nañ ne yéen mënoo leen. waaw xam nga. il n'est pas interdit de il n'est pas interdit de rêver il n'est pas interdit de rêver le peuple les a vomi il y a même pas deux mois yaakaar na ne en deux mois n'ayant rien fait que croiser les bras et constater ñi peuple bi wóolu nga taxaw di leen sànni xeet di leen handicapé di mettre des bâtons dans les roues après nga ni ce même peuple qui les avait vomi wóolu ay nit xaaral xaaral xaaral ma expliquer il y a deux mois peuple les a mm-hmm. gëm benn nit bàyyi ko muy doxal di liggéey yow defoo lu dul essayer de mettre des bâtons dans les roues mm-hmm. peuple bi di observer c'est ce même peuple aujourd'hui nga ne naa dem waxtaan ak ñoom ñu détourné wu ci ki ñu gëmoon gëm ma man loo leen wan loo wax loo leen def alors que le peuple chaque jour mu jot ay scandale yoo leen def te kenn réglé ko peuple bi ñàkk na jom ñàkk jom bu toll na fàtte loolu yëpp fàtte li yaakaar yaakaaroon ñoo gëm leen il n'est pas interdit de rêver ils n'ont qu'à le faire mais qui va le faire. attends mais waaw mais mën nañu euh, ah, ah, ah. il y trois mois avant les élections mhm. présidentielles que nous allons gagner au premier tour du gisaane du seet du xam-xam analyse politique la ak xam li ñuy liggéey. tudd nga législative yi nous sortirons avec au minimum soixante quinze pour cent. ay tonton. garde bien cet enregistrement. Mm-hmm. ñoom tuñ sax campagne fu ñu dem ñu dàq leen. balay ah, législative balay législative jot nguur gi dina woon peuple bi loo xam ne peuple bi dina bëgg bëgg boo xam ne ku fa ñëw législative di wax ñu dàq la et on aura plus de soixante quinze pour cent une majorité totale absolue. pour gouverner comme le peuple le veut ça c'est moi qui te le dis kon alhamdulilah jërëjëf kontaan nañ. <laughs> ñu baax rek euh, ñu delluwaat rek ñu rek. Uh-huh. di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax nag waxtaan dafa yombul làmmiñ da wax. quelque fois quelque fois mu daj non vendredi c'est pas ah yàlla yàlla mën na dogal uh-huh. balay vendredi ma dem penku. ah waaw waaw waaw yaa ngi ko doon annoncé yàlla mën na dogal balay vendredi ma dem penku. su yàlla dogalee vendredi dem ma penku dinaa ñëw ñu waxtaan. lu ko mooy nag incha allah bu nu yàlla mayee ñu jóge penku ñu yeggale waxtaan bi. ñuy wax rek nii suñu waxtaan ku mu heurté. Mm-hmm. wax la loola metti taxu ñu woon jóg. Mm-hmm. dañ doon wax rek seet nan ko mën a waxee ak nan ko war a rafetal mm-hmm. waaye di wax peuple bi rek ni leen. mer nañu c'est-à-dire. maanaam ah, le problème de Air Sénégal lépp problème de Air Sénégal lu mu war a lijjanti la malheureusement émission bi jeex na on pourra en mais Air Sénégal Air Sénégal incha allah il faudrait que ñu dimbali leen def leen ba yii dootul amati. parce que chaque pèlerinage situation yi mel nii te avion benn benn vol bu perturbé rek porte ci gën a am yëpp. Mhm. mais yàlla na yàlla def lépp mën a rétablir ñu war a dem yëpp dem aj jàmm yàlla nangu ko dellu sa jàmm. donc di waxaat rek peuple bi ni leen. yéen il y a yéen a wóolu ay nit mm-hmm. les jumeaux de la république mm-hmm. kenn ci ñoom génn na barki démb ki sañ a wax wax li leen li ngeen nu santoon ñu ngi ci mm-hmm. taaxirul leen tuuti di ngeen gis résultat bi ñeneen nee na ñooy dañ leen di jaxase ak ñoom kalaame leen ak ñoom pour ngeen nangu réew mi foqati ko jox leen ko wala ngeen joxleen leen majorité à l'Assemblée nationale mooy yéen peuple bi amu leen fulla gëmu leen dara te xam nañ am ngeen fulla te gëm ngeen wóolu leen seen premier ministre la ngeen leen santoon la ngeen bëgg fa ngeen leen yónni ñu nga ca may la leen un ci lu yàggul ngeen gis ko bu leen kenn détourné te nag liggéey lu bare wax tuuti lañu def président du wax premier ministre du wax gouvernement du wax parce que dañuy liggéey li ñu war a liggéey ñun nag ñooy ñëw di leen expliquer ak lañ ci xam tuuti. Mm-hmm. waaye incha allah ci lu yàggul lépp dina leer ba ngeen xam ni ñii seetaanu leen doo leen rëccu tax ngeen ngeen fal leen te législative yi ngeen ñëw ngeen préparé jox na une maturité. pour ñu mën a gouverner pour ñu mën a gouverner nañ ko bëggee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf ça a été un euh, dalal la fii encore une fois tonton Mayabé. nekk euh, coordonnateur Macky Pastef bokk itam ci euh, membre Pastef. bureau politique. bureau politique membre euh, Pastef comme ni ñu koy defee à chaque fois dañ ko fi dalal chaque vendredi mais bii di ñëw moom yaakaar naa ni dina ko fekk fële nga xamante ni ñëpp lañ bëgg a dem incha allahu rabbi xam naa prochaine vendredi rek bii bu stop wala après boo jugee rek incha allahu rabbi allah di leen jox di daje très bientôt ak yeneen invité d'ici là portez-vous bien restez à suivre nos programmes sur merci beaucoup